à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver sur vos deux chaînes, Dindi Actu et L'Oiseau du Net. Je suis Ahmadou Sek en compagnie de Malik Fadal Fall pour vous servir. Tainak, nous dañu ñëw Kilifogou si kilifa gu une diva de la musique sénégalaise D'abord, Seye bu ñu ko tuddee rek ngeen xam mooy kan bu ko faire moom dañu ñëw ak ci ay mbir waaye nag particulièrement dafa am lu muy waajal lu bees tàq ci mois de novembre bi mu di benn single bu bees bu mu génnee dina ñëw ci waxtaan wi léegi incha allah ak la diva Daba Sey ci liggéey boobu nga xam ni tàmbali na ko fas yéene ko génnee le 26 novembre 2022 mu di single bu bees tàq moom la ñuy ñëw waxtaane ak moom tey fii ci këram Daba Sey euh, la diva maa ngi lay nuyu bu baax di am mbégte. saa su nekk di jàkkaarloo ak yow c'est un grand plaisir de me retrouver en face de toi. Mm.

jotta a ci walu adina mu di mm-hmm. mm-hmm. sa xarit say dekkendo sa borom keur say goro nangam ak nangam mm-hmm. ko tudd rek dañu nan Daba say vraiment euh, jigen ju exemplaire la loolu nak Sénégal daf la ko seedeel moo tax ma la ko yeggé té yang koy dégg sax d'ailleurs alors bu fekkoon da ngay am ben appréciation boy def par rapport ak loolu nit ñi di wax ci yow lan lay doon wa nit ñi ñoo bax rek puisque sénégalais limay faral di wax rek awma sen fay ñom dafa am cër bu mag buñ ma jox ci cër boobu laa leen delloo li ñuy wax ci man yépp ci ñoom la nekk donc nit moom ba yar yar mooy base nit te loolu laa fexe def ko ci sama bopp moom laay gis ci ñeneen ñi tamit en tout cas di ko yeddewaat sama rakk yi di wax ni yaru dana tax nga am porte yu mag la musique au Sénégal. Mhm. amna na ay jéego yu mag yu def nak. Mhm. mais bu fekkee dañuy def comparaison même même si comparaison n'est pas raison. meun mhm. nañu def kon jangat. diggante démb ak tay. waaw Art bu ñëk ba. ak tay bu fekkoon da ngay def évaluation bi. <laughs> Euh, ñu ñëk ñi loolu di noteel ak ñi bu ñi. démb tax ñi wax tay. d'accord bu tay amé c'est parce que démb fi jaar ba jàll. ñi démb ñi seen signature fi lay dess. ñi ñëw suba sax ñoom mën nañ ci mën nañ ci dund lu bari mën nañ ci jariñu lu bari uh-huh. kon ñooñu dañ fi liggéey lu bari uh-huh. ñooñu moom ay monument lañ kenn du leen fàtte kenn du leen bàyyi ñu des ginnaaw ndax liñ fi des liñ fi def dafi des uh-huh. donc ñu tey ni seen génération lañ tombeel li génération bi laaj loolu la ñu def waaw mais su ma amoon lu ma leen di dolli mooy rek ñu gën a focus gën a concentré wu ci li nga xamante ni mooy thème

mun naa ci lim ku mel ni Thione Seck Assane Ndiaye. Euh, ku mel ni Kumba Gawlo. ku mel ni mm. salaam Diallo. ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñoom ñëpp mbégte la ma jaar ci ñoom. Mm. ndax ñoom ñëpp ku ci nekk rek def nga fi loo xamante ni euh, ci moment boobu ba ci moment bi ñu nekk ñu mhm. ngi dox. d'accord te it nit ñi ñu ngi ci jariñu. Mhm. kon su yàlla defee ma am chance jaar ci ñoom. loolu defe naa ni lu mag la ci man euh, ku mel ni Kumba Gawlo. maa ngi koy maa ngi koy nuyuwaale bu baax di ko ñaanal jàmm yàlla na ko yàlla dolli jàmm ku mel ni Kiné sama maam ku mel ni Assane Ndiaye awu naa ko si studio 2000 ku mel ni Assane Mboup di sama nijaay Abdou Salam Diallo Yves Niang maam Góor Diazaka Pape donc palmarès boo xamante nii lépp riche Papa Thion ah, ay ay ay ay ay ay kilifa yoo xamante ni doo lim musique sénégalaise ci génne leen ci loolu mënul nekk donc bu yàlla defee nga liguey ak ñom lolu mbégte lay nek ci yow. absolument waaw Daba Seye la diva à la voix puissante et mélodieuse laa koy tuddee. alors dañuy wax faral di wax ni puissance vocale. <coughs> Mhm. dafa am solo. Mhm. ci way kat manam mhm. bat bu am dolé waaw alors am ño xamni dañu nan aussi euh bat dafa wara am euh liñuy tuddee manam groove. hmm manam yi dal dañoo dañoo dañoo wouté waaw alors yow ñu gis ni chaque fois nit ñi dañ koy wax ah. mën nga woy sans micro mën nga wax mm-hmm. avec micro. Mm-hmm. avec ou sans micro daal yow macha allah dangay woy. Mm-hmm. te kenn du gis benn faay. alors ñi nga xam ni euh, amuñu loolu. lan mooy sa différence ak ñoom. xam nga mbër moo gis jaar na mbapat. Pisco. Mm. moo gis mu joué ci mu mu mu bëri ci arène. jaar na mbapat. Mm. jaar na mbapat. mbapat dafa am solo ci lo gis mhm. lima may loolu mën na wax ni jaar-jaar bi ma la limal legi ci la bok experience bo xamanteni jele na ko ci ñima la limal mhm. tay nga am ku melni ni Kinélam am ku melni ni Gawlu jaar ci ku melni ni Diouf jaar ci ku melni Assane Ndiaye mais dama ci wax ben affaire bo xamanteni marqué na ma ci Assane daf ma jele fi senegal yobuma Gambie ma dem ñu joué Mandiaye Lodge benn boîte bu mag la bu nekk foofu ñu ba ci yàgg mu gestu ma wàcce ma seen mu wàcce mu wàcce ma soirée bi jeex comme sama nijaay la ma ñëw chambre ma ne ko mais tonton lu tax nga wàcce ma mu ni ma doo awkat woykat nga amoo droit def erreur ci kaw seen loolu bokk na ci li li ma defar waaw parce que maa ngi am envie ànd ak moom Gàmbi dem ba Gàmbi ñoo yendu añandoo ba sur scène ma ma aw ko mu wàcc ma waaw xam nga loolu éducation la maanaam nit ki yar na la ci yariñ boo xamante ni foo mën a dem di ko sóoraale bi affaire bi jeexee ma bàyyi ko ba mu relax ba dund soirée ba pare ma ñëw man ko may tonton dama gis nga wàcc ma mu ni ma waaw parce que yow nekkoo awkat woykat nga amoo droit dégaame ci kaw seen uh-huh. te Assane bu woykat la donc loolu bokk na ci li nga xamante ne tey defar na Daba Seye am na lu def ci man ak ñi ma jaar ñëpp bari na euh, waaye nag en tout cas mbër du dem arène ca jaarul mbapat faaw nga jaar mbapat donc loo gis rek kon dafa am jaar jaar hmm. wàññi boo gis kon ci benn lay commencé waaw base dafa baax dafa baax waaw euh, il fallait que ñu hmm. xaw a rappelé wu tuuti waaw sa jaar jaar pour nit hmm. ñi mën a am rafraîchir leen la mémoire waaw mais sa carrière solo. Mhm. véritablement il a encore démarré 2006. Mhm. si je ne me trompe pas. Euh, nga que rendre hommage. Mhm. Serigne Fallou Mbacke sa Serigne. noo donc wayee woon way woowu. moom laa waxoon man nga fii man nga fee man nga feneen si yomal xiyaam nga jàlle jaam allah ji fallo ba fi fee ak feneen si yomal xiyaam nga jàlle jaam loolu laa woon sama sëriñ. moom nga ubbee sa. carrière solo waaw sama carrière solo léegi defe naa ne jigadiwu la. ndax. Mhm. génne nga fi ay album yu bari. Mhm. dara weesul ci la bokk. waaw maam Fallou boobu ci la bokk. ci la génne nga fi jàmmi senegal mhm. génnee fi ni mu neexee. waaw di waajal. kenn naxu la. kenn naxu la <laughs> kon yow sëñ Fallou naxu la. déedéet sëñ euh, Fallou naxu la sëñ euh, wax dëgg yàlla au delà nag da mën a way geeg yooyu yëpp. Ah. la musique sénégalaise dafa am ay réalité mhm. réalité yooyu man ak norme yi mhm. faaw nga suivre ko pour nga mën a am plan de carrière mhm. yow da nga am manager waaw Mor Mané mooy sa manager sama liggéey ak moom dafa jafe wala yomb na liggéey ak moom yombul d'accord yombul parce que xam nga bu fekkente ni yow artiste bi dafa am nu la yàlla binde man nit laa ko ku dal d'accord nit laa koo xamante ni jàpp naa ni fekk maa ngi dund lii sama wërsëg dina ñëw mais moor dafay bëgg tout le temps may jug di nekk ci sama liggéey di focus li ma war a def ma def ko. Mhm. ca man des fois damay gis ni nit buy dund li nga war a am ala kulli àll dana ñëw. Mhm. mais moom li mu gis rek mooy tout le temps dama ci war a nekk dama ci war a nekk rek ci nekk rek mhm. donc nit la koo xamante ni dafa bari rigueur daal waaw nit ko ab rigueur la waaw par rapport ak man man jàpp naa ne sama lépp waxu sëñ Fallou ba rek tepp tepp moo gën yuréet mais mom daf naa ma da nga ci nek. xam nga donc nekul nit ku yom a trop. d'accord c'est pas facile quoi. waaw euh, loolu yëpp kon fay bëgg rek perfection lay. waaw lay bëgg euh, yow tamit neexuloo mm. man xam naa nit. Mm. am perception bu bu yomb nga macha donc c'est pas facile de travailler. alors euh carrière bi machallah riche na. Mm-hmm. jot nga fi euh, dem théâtre national Daniel Sorano mhm. anniversaire Donc on ko njëkk defee en tout cas bu mag hein, euh, au delà de yeneen yi ngay def feneen mhm. euh, après nga dem 2016 grand théâtre feesal ko ba mu jaaxal nit ñi waaw loolu sax d'ailleurs dafa nekkoon surprise ñenn ñi <laughs> parce que nous woon ni daba parce que le grand théâtre da doon soog a xew waaw daba sëy ñëw grand théâtre bi ñu ne mhm. ah Wayen. yéen kii moom am fit <laughs> sans problème ah, et puis euh, bëgg naa nga ñëwaat tuuti ci grand théâtre parce que c'était vraiment extraordinaire

mais sama nit yu bopp ñoo njëkk ci daba say grand théâtre noonu non man leen ah mais mënuma ci dara moor nee nañu déclaré grand théâtre mais alhamdulilah sénégalais yi nag nangul ma comprendre ma ñëw jàppale ma jàppale ma teral ma man jàpp naa ne grand théâtre bokk naa ci artistes yi nga xamante ni dem nañ fa cay sax nag yoruñu yoruñu moyen buñ fa dem <laughs> maanaam dañ fa dem en tant que woykat dañ fa dem en tant que ndaanaan bu ñu xàmmee ci société bi pour bëgg a relever défi bi rek parce que li olof di wax ni sa moroom yëpp bu ñu jaree béy boo jarul béy rek di njëgu béy ñu daal di dem mais port bu ya bu ma ub bu ma fëgg rek suñu borom ubbil ma ko yaa ko liggéey waaw loolu moom alhamdulilah sant naa ci yàlla bu wér mhm. ci sama yaay ndax bi ma koy ne ko grand laa jëm daf ma maa ngi lay ñaanal yaa ma yóbbu màkka mbooloo mi ma fekk màkka yal na la ko yàlla soppit indi la ko grand théâtre

delluwaat nga fa 2019. waaw delluwaat naa fa 2019 boobu gënoon a waaw euh, boobu moom bi ma fekkee ci biir may maquillé wu. Mhm. ñu ne ma salle bi amatul fu nit toog jooy naa. Ah, waaw parce que nga def benn yoon benn mbir ak salle bi ni mu toll defe naa 1800 cent place nga ma ñëw njëkk fa jaar senegal yi génn. Mhm. ma ñëwaat Sénégal yi def même chose loolu loolu moom tooyoon na sama xol. Mhm. man xam nga ni yow mi ma yow mii nekk man xam nga ni. absolument xol bu xol bu oyof laa. bien sûr loolu moom tooyoon na sama xol trop. Mhm. macha allah waaw ñu ngi ma fekk ci bureau umu si. waaw ni ma saal bi fees na. ma jooy ba maquillage yi dafa yàqu. wallaay ndeysaan mm-hmm. waaw mais loolu yëpp euh, liggéey parcours bu am solo et puis mm-hmm. teraanga ji nga ji doomu aadama yi euh, parfois dañuy wax ci yow dañuy yaakaar ne li ñuy nekk ak yow a tax mais mm-hmm. loolu li lay wax yëpp dëgg la ah te loolu sénégalais yi xam nañ ko même ku nekk ba bitim réew gi ngay dem nga xam ne chaque fois da nga fay dem daanaka ñaari weer yu nekk di nga dem États-Unis wala nga dem Europe loolu tam nekk teraanga joo xam ne du yàlla artiste yëpp la ko jagleel alors mu modi yow da ngay waajal lu bess waaw il fallait que nak ñu rappel lool yépp ce parcours bi jaar jaar bañ ko résumer rek am na yeneen sax yo xamné <laughs> nañ ci dellu siwaat en plus large de toute façon mm. euh nouveauté la mm-hmm. bo xamné nak togon nga depuis 2019 mm-hmm. génne woo lu bees après album ni mu nexé uh-huh. mu nékkon album six titres hein. mm-hmm. vraiment nékkon ben carton neexoon lool euh cette fois ci nak nga tok ba 2022 waaw lu taxone xaar bi sax d'ailleurs oo oh, xam nga euh, Pisco wax naa la léegi ma ni la sëriñ fàllu man ci moom laa wékku man ginaaw yàlla ak sama waajur sama lépp sëñ fàllu la te boo wékkoo ci nit bëgg ko na muy doxee noonu ngay doxe donc nee na tepp tepp gën yu reet ma jàpp ni boo defee album war nga koo may benn temps 2019 ak 2022 defe naa ni suma juumul 4 la 4 mm, ans la loolu defe naa ne album am na ci temps pour nit ñi découvrir ko xam ko ko ni mu neexee bi mu génnee léegi def naa ni 4 ans la mm-hmm. dafa jot nag boobaak léegi sax li ma toog Sénégal bariwul boobaak léegi mariage yi mag Sénégal yëpp yàlla dogal na ni vendredi samedi dimanche man maa koy tëgg waaw uh-huh. ah, ma ni nag bii comme ñu ngi dugg ci décembre moon aw ma droit bañ a génne lu bees pour may ko sama soppe yi daa te ngi ko doon xaar tout le temps waaye yow ah. Daba Seye foo nekk Daba Seye gën nañ la gis ci télé bi uh-huh. donc bu jot na nag nga defal leen benn mbir moo xamante ne dinañ ci mën a sukkandiku pour xaar album bi. ñu ngi gis teaser bi ah. mu ngi mhm. ci réseaux sociaux yi. Mhm. Mm, nit ñi di ko partage ak challenge yi macha allah. Mhm. TikTok beeg fépp ñu koy partagé. <laughs> alors euh, mu doon euh, single boo xam ne. li muy annoncé. dafay annoncé amour. am na message aussi boo bëgg a lancé. am na ñoo ci rendre hommage. waaw loo ñu mën a wax ci single boobu. waaw single bi single bi moom mbëggeel la ëmb. mbëggeel mooy li ci nekk. wax nañ ci tamit li nga xamante nii moo war a téye mbëggeel rendre nañ ci hommage benn nit mais surprise la ci moom d'accord parce que ba léegi may wax ak yow ni moom xamul ni moom laa ci woy mm-hmm. te yenn saa mu bind ma message dafay gis teaser beeg yëpp bind ma message waa lii bu génnee xanaa dina neex bërki démb rek jooyloo na ma te xamul ni moom laa woy ma ni moor xoolal ki ndeysaan yëgul sax mm-hmm. ni moom laa woy mm-hmm. te dafa gis seen teaser bi rek bind ma message waaw lii dina nar a neex de donc loolu mooy àdduna. nit loo koy defal. moom bu mors bi génnee mbaa doo ko rey benn yoon. <laughs> mu déglu ko rek. déedéet moom buur la. moo tax moo yàgg moom depuis ci maamam yi. Mhm. li ma koy wax nii. deretam miin na ko laataa juddoom. macha allah waaw kon dina nekk loo xamante ni dina ko neex. ça lui fera waaw waaw. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Euh, ndaanaan nag moom euh, bu la woyee. Mhm. dinga am loo yëg. Uh-huh. am na ñoo xam mën nañ laa woy ba jàll te sa dara du yëngu. waaw waaye yow koo jàkkaarloo woy ko dina am lu yëngu ci moom bu dees gor la alhamdulilah waaw. te njort naa ne ñi nga ñëpp nag ay gor lañ. voilà maa ngi fàttaliku Mor sa xarit. nga woy Siga Dieng. dama laa yéenil lu baaxee Siga. sama juddu la très sama juddu la. Siga Siga ñoom bu nu juddoo. Mhm. suñu ween lañuy ñuy njëkk a seex. Mhm. comme kii ma woy ci morceau bu bees bi mhm. ni Siga mel ci man noonu la mel ci man. donc ñoom ñun ak ñoom amul géwal ak géer li may defanteek ñoom fi laa ko fekk. kii ma woy ci morceau bi nii maamam daggal na sama maam. kër mu dëkke fii ci usine. Siga Dieng sama maam yi dañ daan ware fas xombol ñëw di seet si waajuram kon waaw lu naturel la lu ma fi fekk la euh, titre bi yaa ngi ko tuddee mhm. kenn naxu la kenn naxu la waaw mu am message bu mhm. dëxëñu ci biir kenn naxu la kenn naxu xam nga léegi relation dafa doy waar waaw kenn wóolatul kenn daba sëy déedéet ba ngay wax ak ni téléphone sax mu lay enregistré waaw wala nga toog nit ki di la filmer te doo ko yëg at doo ko nga jëflante ak nit yaakaar ni sincère na fekk ma nga lay nax mu wor la waaye yow kii ngay waxal naxoo ko. déedéet naxuma ko. jayoo ko naxuma ko jayuma ko. Mhm. parce que xam nga des fois woy dafa nekk lu sensible loo xamante ni. waaw yow woykat bi. ñu mhm. ngi ko tibbee ci sa xol. Mhm. jëmale ko ci nit. moom bu ko jegee sax mën naa am ñu ko war ñu ko woykat yi dañ lay jay donc moo tax ma ne ko kenn naxu la kenn jayu la waaw wax wax la yoo xamante ni bu ñu koy bu nu ko yemale sax ci morso mbëggeel bi rek. kenn ku ci nekk na nga ci gis sa bopp waaw mm. peut-être ci ki ngay àndal mm. jàpp ni sa xarit la peut-être ci ki nga wóolu di wax ak moom peut-être ci ki ngay bëgganteel kon jaayante même ñaar ñu bëggante sax jaayante ak ndax da ciy am da ciy am jaayante affaire jaayante affaire mm. moo tax ma ni ko kenn naxu la kenn jawi la kenn naxu la kenn jawi la waaw dama ko dëxañ li mu ëmb bari na mm-hmm. du ci du ci du ci morso bi rek mm-hmm. mais comme ay ay message lañ mm-hmm. danga nga war di génne loo xamante nit ñi

Uh-huh. avant en tout cas. pendant eh, après fête après Noël ah, ak fête fin d'année. <laughs> il sera suivi. Mm. d'une tournée certainement ou euh, d'un dîner de gala. le 16 décembre. inshallah. Radisson Avec association Tringa. association Tringa. mais le look ko Hmm, euh, amul dara lu ne ci diggante bi laata le 16 am na lu nekk ci diggante bi wax maa ngi lay wax ni la Sénégal defe naa ni vendredi samedi dimanche. waaw xam nga ko dafa am lu am solo loo xam ni faw ñun artistes yi ñu bàyyi ci xel. Mhm. gis nga artis bi dañ ko daan gis ci boite ñëw seetaan ko fay ko mais te am na beneen formule boo xamante ne artiste mi ngi ci liggéey di ci gagné vie maanaam ñu ñoo jël ma du publicité mais fu mel ni xel comme bâche bâché ko ba mu rafet mm-hmm. décoré ko ba mu nice mm-hmm. jël daba say teg fa fay ko may ko di ko seetaan mm-hmm. donc loolu lépp ci aar la le 10 incha allah maa ngi am bu mel noonu fii ci parcelle 10 décembre defe naan ne décembre bi moom bu may bu ma bu ma su ma ba ñu sax waa gis nga mais première ba 30 incha lépp programme la ci daba say waaw et puis loo xam dafa ma xaw a échappé tuuti moo di yow euh, da nga am ay relation yu rafet ak toutes les artistes sénégalaises waaw muy Viviane mhm. di Titi di Adiouza mhm. barki dem rek maa ngi déglu benn vidéo mu naan Daba Sey daf ma neex dama koy déglu et tout alors lan ngay yëg booy dégg ñoom euh, si et puis surtout relation yu rafet yooyu nga am ak ñoom ah, mais loolu mooy yoon nekk say concurrente entre guillemets. waaw mais loolu mhm. mooy mooy mooy mooy yoon. parce que olof nee na ñi bokk teen. ñooy laxasoo ay goj man xombal laa dëkk te defe naa ni boo dëkkee ci dëkk yooyu partage rek ngay xam mm-hmm, bokk oh, Adiouza waxam bi marqué na ma mm-hmm. parce que des fois ñu interroger sa moroomu artiste euh, journaliste bi tudd la te moom du bëgg a jaaraat ci sa tur mais Adiouza li mu def noonu baadoolu mënu ko daba sëy dama koy seetaan mm-hmm. dama koy déglu xaw ma ndax xam na ko am déet mais dama koy déglu xoor na ci man parce que du artiste bu ndaw du artiste bu ndaw mais cofeel boobu ci papaam la njëkkee Père Ouza dama génn 2006 bokk na ci artistes yu mag yi ma njëkk woo ni ma nag ma wuy si sama kër ma dem wuy ko këram mu encouragé ma yaa ngi may dégg daal di may dolli xel wax ma ni ma na nga gëm sa bopp bokk nga ci diva yi donc kon su doomam ñëwee jaaraat foofu loolu marqué na ma ba pare li ci garaaw mooy moom dafa tombeek sama doom bëgg ko tout le temps daf may wax ni ma su ma amee jëkkër aji ousa bu doon benn une heure de temps dinañoo def ko ci man donc loolu mbégte la moom star la man xam naa ni moom star la waaw parce que jàng musique bokkut ak ki nga xamante ni dafa jékki rek woy dafa sàkku ba xam moom donc nawloo naa ko ci loolu kontaan naa tamit ci cité boobu nga xam ni def na ko tudd ma ci waaw aji ousa doomu hmm. ousa jàllo ji euh, single bi tam bi mu génnee am na ñoo xam ne mhm. ñëw nañ ba sa biir oto mhm. yaag sa borom kër déglu ko mhm. artiste bu ci mel ni Wally Seck moom xale yëpp bëgg ko nag Sénégal bëgg ko àddina bëgg ko moom itam mu doon sa doom bëgg la moom itam aussi ah, vraiment jox la cër lool aussi waaw Wally dafa la koo xamante ni yaakaar na ni man li ma gën a marqué ci moom yaakaar na ni la gisee moom moo la war a jox man des fois dama koy xool sax ci lu dul ñu gisee ma am ñeewante ci moom parce que nit koo xamante ne dafa social foo ko gis dafay bëgg di joxe il est souriant foo ko gis dafay reetaan nit la koo xamante ne nit la ku war ñëpp war a ñaanal euh, defe naa ni sax ci gise boobu yaa ngi fa woon maa waaw mhm. mu ñëw toog ci oto bi déglu morceau bi apprécier ko après gars yi yëpp TikTok loolu waaw xale yëpp TikTok ko maa ngi ko ci kontaane bu baax sama rakk jooju moom dañu bokk bàyyi ndax papaam daf ma bëggoon. daf ko déglu rek parole ci hmm. waaw xam nga artiste bu amul boobu intelligent rek des na. xam nga dafa am lu am solo loo xam ni defe naa ni bokk na ci ñi ko yàlla jagleel muy artiste. Hmm. maanaam gis hmm. mbir rek. mu des ci boppam. wala mu dégg mbir rek mu des ci boppam. loolu xelu artiste yàlla bokk na ci ñi mu ko may.

mais Ouzin branchel ma micro bi mu branché uh-huh. est-ce que kaay kaay kaay est-ce que Mor duñ ko defee nii uh-huh. nañ dugale nii dem na ba jooy ci morso bi uh-huh. donc ca ndaanaan bu mag la man jaar naa ci moom aw ko donc kon loolu encouragement la koo xamante ni bi ngay bi muy woy woyoo yow bokk nga ci ñi ñi ko aw mu bokk ci sa ci sa ci sa ci sa carrière donc bu demee ba nga woy mu am lu mu yëg loolu foor na donc Pape Diouf mom tamit maa koy remercier sama frère bobu amna naa ci loolu mo def. daj depp gi. Euh, da ngeen a King Fat Palace. Mhm. mu invité la jox le première partie dîner de galam. Mhm. il y a trois ans je pense. Hein. Mo, nga yéeg ci scène bi. Mhm. ci partem mom mu taxaw. dal di japp sa loxo. wa ne Daba Sey. da nga mën way. man xam naa ne da nga mën a way wallaay Sénégal est-ce que ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax est-ce que ça te fait Youssou Ndour def <laughs> genre témoignage yooyu ci yow ci ci ci yow ku day ni Youssou Ndour en fait Youssou dafa am lu ñu boole loo xam ne xam naa ne sax moom fàtte na ko hmm. sama premier album dama dem cosaan seetaan ko ba pare mbay Dieye Faye woo ma maa ngi ànd ak moor ak Babacar yàlla na ko yàlla yaram ma yéeg ci ko seenam woy ci moom maa ngi tombé woon ak Mor Sa Ndiadiane ma woy ba pare wàcc xaar ko bi ma ko xaaree man ko dama bëgg nga ñaanal ma ci oto Mor mi ngi taxaw mu ñaanal ma ne ma na la yàlla jàppale mais ñaan ba gis naa ko beneen bi mooy li nga wax dañu tëgg King Fat Place ma defal ko première partie pare yéeg ci moom mu ni ma nawloo naa la nawloo naa la est-ce que Sénégal ñu ngi lay bàyyi xel

mais man am na caractère yoo xamante ni jël naa ko ci moom mooy ñàkk tontu nekk ci li ma nekk ci du ma geestu te loolu yëpp ay ay ay ay ay ay jikkoom la. waaw moom dafa baax. nit ku baax la. def naa fi grand théâtre mu yónnee ma teranga bu bëri. wanoon Mara Dieng moo ko indi. may nii bu baax sama mbokk moom Mara Dieng te Youssou Ndour du n'importe personne. bu ñuy waxal lu amul donc frère papa kontaan naa. <laughs> Youssou euh, waaw moom tey moom ku jar a nuyu la. waaw alors mu rapport yu rafet yooyu nga am ak vraiment sénégalais yi. Mhm. moo tax nag euh, ñoom ñëpp dinañ la wuy si. Mhm. Euh, ci sa single bu bees bi. Mhm. du ñàkk di nga leen ko yóbbul. ñu déglu ko. waaw ah bu uh-huh. ko defee ñu def seen appréciation. da ci am def encouragement yi. gën laa mm. ñaanal xëy na nga gën a jëm ci kanam. parce que ndaw nga aussi. yaa ngi nekk ci sa. diggu carrière yàlla na borom bi mottali alors euh, le 26 samedi incha tu ci single bi di génn mhm. bu ko defé euh, ñëpp euh, fekkee loolu incha au Sénégal ñi nekk ba ñi nek ba bitim rew itam jot ci alors il sera suivi d'un album wala lolu c'est pas encore à l'ordre du jour ah si mhm. faaw ñu def album xam nga fay am fu carrière di tollu waaw nga nga nga ci ñi nga xamanteni ragné nañ leen waaw nga nga bëgg tamit sa liggéey nekk ci liggéey bu ñu professionnel yi dafay am fooy looy def ak loo dul def mhm. morceau bi ci album la nekk d'accord allah ci album la nekk extrait la waaw bi extrait xam nañ ni weer la boo xamante ni weeru mbëggeel la weeru nobel la waaw comprendre fin la mhm. danga nga ci génne lu ànd ak moom mais ci album la bokk incha allah incha euh, ñu daaneel nag daba parce uh-huh. que yaakaar naa ni yegsi nañ ci cëppaandawu émission bi. Mhm. Euh, le onze le mm. seize. le seize décembre. incha allah ci ngay dem euh, Radisson. Radisson ànd ak waa association. Kringa Kringa. diaspora ñooñu waa diaspora lañu. waaw yàggul dara rek jëlee nañ ma fii Sénégal yóbbu ma. Amérique itali Italie. Italie Bergamo d' accord d' ok Italie. Euh, moom defe naa ni événement fii Sénégal ak ci biti. ñi ñi mu woon yoon bari na nit la koo xamante ni boo ko fekkee itali nawloo ko yóbbu na ma itali nit ñi ñuul ñu bariwuñu tubaab yi ñoo ko wuy si keroog dama dugg ci mairie la ko defee mairie dama ñëw ci mairie bi ma woo moor mais na ko Mor est-ce que fii mooy programme bi parce que ñu ko wuy si ñëpp ay tubaab lañu donc kooku tamit dafa baax Sénégal yi ak gouvernement bi jàppale ko parce que li muy def yëpp ay moyam la ak association bi peut-être kon baax nañu jàppale ko tout temps da koy def fi Sénégal lu bari diko def Italie at bu nek diko def Sénégal at bu nek donc lolu da fay dafa bax ci ñu jàppale ko baax na ci ñu jàppale ko na ci ñu jàppale xombal la en même temps ñoo bokk ah, doomu xombal la doomu xombal la ah, allah waaw alors euh, dama yaakaar naa ni nag am nga message peut-être boy lancer mhm. à l'endroit peut-être de la jeunesse sénégalaise mhm. nga xamni ni ñi ak jigen ñi ah waaw actuellement gis nga ni jamono doy na waar waaw na waar yu bari mi ngi xew mhm. alors euh, tas yi bari na léeg nga mhm. dégg divorce yeeg xuloo yi ci internet bi yaa ngi dégg yooyu mhm, xuloo maa ngi koy dégg waaw tas yooyu noonu bari na <laughs> mais ci gën a nag Pisco at mi na ci couple Mabo ndeysaan couple Mabo tas yi moom yëpp mën nga yëpp nag suñu borom la. parce que tam ci làqtu woon ndekete ah. waaw bari na ci tas yi am yoo xamante ni sëy sax laay wax. mbiru suñu borom la ci loxol yàlla la nekk kenn mënu ci dara ku dul yàlla mais bi mu amee ma dégg ko rek dama woo Mia. ko. dama ko woo téléphone ma woo ko ni ko nu ñuy gisee parce que li waruñu ko seetaan ma wootee ci ku góor ki manager am laa jot pour essayer nan la ñuy réconcilier parce que boobu couple dafa rafet rafet boo xamante ni mag ñi sax dañu war a jóg taxaw ci couple bu rafet la mm-hmm. donte am na lu bëri luy làkku

droit la jàng. droit la waaw kon loolu quelque chose la. absolument bagage jëkkër ji tamit ñu ngi koy tàllal loxo parce que jot naa manager am <laughs> jot naa ko. ñu waxtaan man ak moom. Mm. ma ne ko man. Mm. sama sama xol attanul couple bi ñu ñu séparé wu. mais est-ce que d'accord nga ci seen way yu ñu génnee de côté kii njëkk a génne benn way. Mm-hmm. kii génne beneen way mel ni kuy euh, xam nga. est-ce que waaw mais yow yow ko pis ko xanaa xamoo seytaane. Hmm. seytaane. gis nga bo gisee man fréquenté Sénégal dafa naxaré nek de. fréquenté wu ma kenn Pisco man sama jëkkeur sama doom suma ma may wax mako ak sama yaay sama jëkkeur sama doom mais fréquenté wu ma kenn parce que entourage dafa doy waar. c'est compliqué donc cheytane dafa bëri doole mëna jaar fu nek mais xam nga ñi sey ah am ay doom nee na am na ñaari doom kenn ki dafa làqu. kenn ki mi ngi dund ñu dem ba séparation am. Euh, lolu nit ñi dañ ci wara juk ba ñu li waral tass bi. mais defar. defar moo moo baaxaat defar loolu moo baax ndax loolu rek moo baax. sama rakk ji waxtaan nañ man ak moom. macha allah waxtaan nañ en tant xaw ma ko mais dégg naa ko yaru la nit la koo xamante ni. boo ko structuré boo ko dégloo di nga xam ni am na lu mu bëgg. Mhm. xel bi tamit am na lu ci nekk macha allah mhm. Mhm. donc ñu ngi ñaan waa ji. et puis elle waykat la waykat la mais xoole bi ñu àndee ni mu naay see. bi ñu bi ñu bi ñu tàkkalikoo na nit ñi jug defar. man senegal suma amé amee lu may metti loolu lay wax hmm. da nga gis digënté bu yàgg digënté bu baax hmm. yàqu hmm. ci seytaane rek yàqu mais ñi bëgg xam mu gëna a ah, non non nañ ñu juk ki di faral ko goor gi ñi di faral ko jigéen ki loolu modul yoon bo gisé man suma amé sama problème dama koy daxañ man euh, Pisco nit la bo xamanteni limay neex ak limay nakari nit mënu ko xam absolument nit du ko xam nit bo amé lo neex partager ko ak sa bop ak bok la proche bo amé lo nakari tamit bu ko wax ken ndax xel dafa des fois da ngay dajé xel bo xamante du mat torop lim lay digal ci instant bi nga méré man nga ko def te fekk na du gën ci yow mhm. ñu bàyyi xel lool mais miya ak jëkkeer ji mhm. ma ngi tàll loxo Sénégal nañ ci juk warul tass légui nak xawma ci ken naxul la lay doon ah. xawma fan lay doon <laughs> ah. waaye wala nga mayat ñu dara ci seigne Fallou rek ñu barkeeloo ko rek ah, seigne Fallou waaw ñu tajé ko inshallah sama xarit bi waaw suñu xarit la démb damay wax ak Siga Dieng ma ne ko Siga. man Siga damay ñaan sëñ fàllu mm-hmm. di ñaan sëñ Fallou ba damay jékki-jékki ma ne ce que sëñ Fallou dina ni kii dafa baadoo la. su may génn sax su may génn di dem sax. Mm-hmm. su ma demee ba wàcc escalier yi damay retourné waat. ci fotom ni ko maam maa ngi dem. ngëm-ngëm la. Mm-hmm. cofeel la. te sama diggante ak sëñ Fallou dafa garaaw. dafa doy man dama dem barabam. di fa ñaan nelaw fa. bi ma yeewoo ma jooy mm. ku tudd Cheikh mbay moo ma yóbbu ak soxnaam Sinna ñu ne ma mosoo dem tubaa li ma la yàgg na ma ne mosuma dem Touba ma dem Touba ñu njëkk maa dugal barabu sëñ Fallou mm. ma ñaan ba pare nelaw bi ma yeewoo ma jooy ñu ma lan la man leen kii sama xol bi dugg na ci moom dugg na sama xol donc loolu lu naturel la boobaak tey lu ma ko ñaan mu may ma ko damay am ay doomu jigéen di am doomu jigéen waaw dem barabam ni ko mm-hmm. man bëgg naa la ca bëgg naa laa tudde doom mm-hmm. may ma doom bu ma tudde la ko ma ñibbisi rek jël sama fàllu waaw donc sëñ leneen la leneen la leneen la alaaji fàllu baaxee balak maaram bàyyi sëñ boo mu barka bàyyi sëriñ Cheikh Oumy sama waajeeg sëriñ xabaat mu àndaloon makka Sidi Falliloo ñëpp Malick Fadilou Fall puisque Alaaji Fallu waayam daal moom du des ginnaaw balay sama cag ngay Fallilo suma jaaxle woo la nga ñëw balak maaram bay Cheikh Awa Balla caat sëriñu si nga njëg bee Fallilo yaa man fii ñu jëm bu yomal Mbakke yaay jàlle jaam ni Alaaji Fallilu sama waaji kini woon abay Mbakke yaay bu soli la réew mi taamu Malik waaje mooy parfum bi saf Sénégal Alaaji Fallu Xaadim baye ma nga fu mu juddoo woon fu dul mbàkkee bari dinaa lëj le foof sëriñu si nga saalaak lay dee ah puisque Cheikh Momadou Fadlu laa doyloo ca boobaak tey aw ma tànki ginnaaw Malick Alaaji Fàllu ku ànd moom doo nax say doo des ginnaaw ca kanam nga jëm falilo sama waa yee balay sama ca ngay sëriñ maani fadil faal daba sey ak siga jeng wowo ak fisko falilo kooku mooy bàyyi sëriñ Abdou Fatah di maami soxna Ndeye Mbacke uh-huh. ah, ah borom dindi acti moom itam ñu koy nuyu au passage soxna Daba kontaan yal na yàlla wéral baat bi guddal fan wi wéral cër yi yokk xaalis bi am ay kër yu bari bari amin wii nga way yàlla nañ ci am ay kër yu bari ay waay oto moom am nga ci ñaar def naa yàlla <laughs> yàlla dolli dinaa ci sama déet ah tey de moom def nañu bàkkaar bàkkaar <laughs> bàkkaar bàkkaar lañ def <laughs> ku la wutaleeg say nawle faaw nga koy wax lu baax la dëgg la ah sama ji démb dañuy nekk ci shooting rek sama doom jooy ki ne fay. waaw ma ne ko ki ne jooy. Mhm. mu ne ma tellement sam papa ni mu la taxawoo. ndeysaan ki ne. ki mooy sama taaw ak moom. ca mhm. yow mu ñu fréquenté xam nga ni boroom farata la. ndeysaan nit la ku dëggu moor. nit la mhm. ku amul demi mesure. moom defe naa ne àddunaam yëpp bu weesoo liggéeyam ak ay ay bëggi-bëggi boppam daba sëy la donc aw ma fayam morceau bi moom moo ko bind moo ko bind yee ma suba teel dama jugal xool ma jug ni ko ah Mor bàyyi ma ma tëdd nelaw mu ne ma noo jugal xool ma jug xool mélodie morceau bi neex ma topp ci morso bi guddi gi day taal oto bi nañ dem moom moo koy woy moo koy woy jox ma ni ma yaa neex baat. maa ngi dégg keroog waaye naan. aw ma fayam. dañu mës a toog man ak yow ak moom. Mm-hmm. Mm-hmm. defe naa ni am na ñeneen ñu ko fekke woon mu toog mooy temps yi ñuy def tournée nationale bi. en 2017. Mm-hmm. ñu toog mu ne mu ne mu ne daba gis nga ñiy toog. Ah. <laughs> nga ñiy toog. Ah. ñoom ñëpp ci yow la ñuy liggéey man sax yow laay liggéeyal. xam ma doon chauffeur. <laughs> su waree ma ngay nettali xombal nee na am na fu ngeen demoon xaw ma fan. Kébémer Touba Toul lañ dem. Touba anda ke waaw monsieur Serigne Mbacke sama nijaay. waaw xam nga moom tamit sama juddu la. Serigne Mbacke Ndiaye Serigne Mbacke Ndiaye. waaw ñoom ñoom Serigne Mbaar nyom ñoom bu ñu juddoo ñun ñoo leen di nàmpal. definan moom mi ngi ministre. Hmm. ñu dem tubaatul ak moom. waaw bi ñu àggee. ma hmm. ñëw xam nga rek dëkk yooyu nit ñi dañ lay bëgg. daba sëy daba sëy mais man ak rek ñoo ànd ci oto prince dem la woon jour boobu. Hmm. ñu ñëw moom moo doon dawal après dafa wàcc ñëw nekk comme garde du corps. moom kay nag moom xam nga ni daba moom euh, te keroog sax li ci gën a yéeme Malick mooy. dafa am ku ñëw ni ko ni ko xanaa yaay dafa ñëw ni ko xanaa yow yaay chauffeur Daba Seye. mu ni ma waaw. mu ni ko waaw. mu ni ñu toog ma jooy ma ni ko mais Mor. waroo koo nax waaw. yaay gàddu koori Daba Seye nga ni ko waaw. mais xam nga yooyu yëpp bu bu ko nit dee def. ndax benn jëm moom yéene ci yow moom. moom yéeneem ci léegi laa koy wax ni mu ma jëlee woon ci 15000 indi ma ci ay millions. bi ñuy xamante 15000 lañ ma doon fay. cachet tey sama jëkkër jël ma jële ma ci 15000 indi ma ci première sama première cachet ma dem Espagne. Uh-huh. ni ma fay 12 millions. 12 million jour boobu ma ne ko mu waaw. wallaay daf ni ma boo bëggee ñu continuer man ak yow. Mm-hmm. boo amul woon mën-mën duma la bàyyi dama lay bàyyi nga continuer di aw. Mm-hmm. mais comme ñu ngi nekk da ngay bàyyi aw ba pare cachet 15000 da nga ciy jógee. boobu maa ngi nekk jàmm gën boo ma waxee dix mille sax dama yàkkamtee jug ndekete boobu liggéey bi nekkul foofu yàlla boole maag moom mu professionnalisé ma ba pare jële sama cachet fi mu nekkoon yóbbu ko fa gën a cher ba ci mariage yi may tëgg nii duma ko tëggal ko ndaw soo ko boo ma soxlaa boo jaaree ci man man aw ma problème mais liggéey boo gis dafa am yoon dafa am ma blanché la moo mu wax ak yow mm-hmm. bu la facturé bu la jaralee ñu def daf naan ma lépp looy def na jaral nit ki xamal ki li la yàlla defal donc ku lay ku lay xamloo sa bopp di la jàppale kooku am mu fayam am na ay jaar-jaar yu bëri yoo xamante ni loolu ma waral may Mor Mané Mor Mané walaay ndeysaan waa te muy lu jaadu nag waa aussi mhm. te xam nga yow li ngay wax ci kaw nii loolu ngay dund en réalité waaw loolu parce que man j'en suis mhm. témoin waaw aw man xam naa la nekk naa ak yow. dañu dañ doon fanaan dañ doon dañ doon nekk di di di fanaan guddeeg bëccëg suba ak ngoon fu nañu dugg fa. alors euh, mu nekk nag koo xam ne ku am rigueur la. waaw maa ngi fàttaliku mës nañ nga tëgg fii benn mariage. Mhm. West Foire. waaw euh, Nord West Foire waaw. Mhm. Ndeye Tall defe naa benn rakkam xaw ma waaw. boobu yaa ngi waroon am aussi beneen xombol. xombol <laughs> dañu pare rek. dëgg la Mor ni ay dañu chargé bagage yi oto yi. bi bis boobu defe naa ne xaw ma vingt minutes la def diggante Ndakaaru xaw ma ma ne ko moor nag loolu ëpp na nag ah alors moom itam yal na ko yàlla may fanu gudd ak wér suñu borom gën leen a bàyyi gën a dëgëral taxawaay bi en tout cas loolu rafet na lool macha allah yal na ci Cheikh Fadal def euh, yërmande kon nag Malick mi ngi noonu ah. defe naa ni euh, moor maa ne mënu toon a ñàkk ci waxtaan mm. wi mm. Euh, bu ñu ko defoon sax ba bàyyi kon du am xorom mm. parce que Mor euh, jafe na lool nga gis euh, borom kër jàppale soxnaam surtout nag ci wàllu euh, lu mel ni aar parce que aar dafa compliqué am. Ah, mm, daba yéen seen milieu bi dafa compliqué de. damay jékki-jékki ba si ko sama bopp bi dafa tàng jër. waaw parce que day dugg ak man ci yoo xamante nii mm-hmm. man damay jékki-jékki jigéen kese laa. Mm-hmm. may jékki-jékki Mor bopp bi dafa tàng. Mm-hmm. baal ma dem tuuti. xam nga wala ma ma fay téléphone yeeg yëpp. mais toujours mi ngi bëgg sama liggéey di avancer rek mais man tamit nit laa ko ko comprendre ci loolu dëgëruma bopp ba pare xam naa ni duma gaañ. lu mu ma wax rek ma fekk si ko ci loolu. macha allah waaw parce que loolu mooy sama rôle ci moom. macha allah waaw jaama xewal. kon nak Malick mi ngi noonu <laughs> euh, rendez-vous bi kon inshallah le 16 décembre la mm-hmm. euh, fofu ci Radisson mm-hmm. euh, ak ben association bu nek Europe mm-hmm. bo xam ñoy teug ben dîner de gala ak Daba Sey waye lu ko jiitu nag le 26 inshallah samedi di le 26 novembre dina génne single am mu tuddé kenn naxu la mu nek single bo xam nak sénégalais ñi ngi koy xaar bu baaxa baax ndax teaser bi mi ngi daw un peu partout donc lolu nañ ko xaar ci Daba Sey di leen jox rendez-vous une prochaine fois jërë ngeen